système bi ni mu demee bii paa dana tax mu jafe ndaxte danoo wëlbati carte gi wëlbatiku ñin koy baatree bokkul commune yi day am eh, day am liste ville bi am liste ville boobu dee day am liste ku ko mën di jiite en cas de doo démissionné jox ko ki nga ko bëgg a jox amatul kon tànn jeex na loolu bu leeree seen bopp kon ñi nga xamante ni ñoo fa nekk war nañoo waajal seen bopp man conseil boobu laa leen di jox man mënoon naa wax ni duma ci expliquer ngeen naa nga dama ñu leen ngeen waajal seen bopp xam-xamu politique la rek dañuy waxtaan rek xëy na bu ngeen ci amee pexe ñu nit ñi ngi ciy xalaat ñun ci base yu leer la ñuy demee ci analyse politique la ñuy demee pour mën a xam fu ñuy teg suñu tànk kon ñi nga xam ñoo nekk foofu nanu waajal seen bopp xam ne département bi mënatula ne li gën a leer mooy ñi amoon département bi moom li gën a leer mooy ñàkk nan ko looloo gën a leer mu des communes yi ak ville bi mais bu fekkente ni léegi système bi mooy wax waxeek mooy am am na ñoo xam ni bi ñuy taxaw naan bëgguñu meeri Thiès déet ñu ko nekkati kon jàpp naa ni tey mbir mi dina changé dina changé Thiès waaye ñooy tànn kenn du leen tànnal kenn du leen tànnal donte am na ñuy wax ni Talla Sylla dañu ko tànnal mais kon ñooñu jar na noo jaajëfal ndax nan ki nga xam ne tey jii wax dëgg yàlla moom nekku fi nekk maire weekend taylewul Cees waay nekkul politicien weekend man am na ñoo xam bu leen gisee ñi politique euh, man parfois dama naan non loo liggéeyul doo doo doo ko jariñoo mënul ne politique kenn du tricher bu ma xoolee depuis 2007 ba léegi may militer di dem ci ay nit di def ay nanga bi kat su ma calculer heure yi nga xam ne moom laay defee politique ak temps bi ma ciy pense passé su ma gisee ñenn yi di ñëw diggante weekend bi ñuy ñëwee samedi soir ou vendredi soir dem ñaari événement boo xam ne deux heures de temps la fay duré wala une heure de temps dix-sept heures génn dix mu jeex bala moo lëndëm ñu def deux bi daal dem ajaat ko ba beneen yoon ñooñu boo calculer seeni heures yi réaliser politique ak ñun heure yi def non su boobaa nga xam ni lépp dëgg la parce que moom examen moom ah boo révisé wul boo jàngul ah def say cours ni nga ko waree boo demee tricher ngay dem te léegi élection bi ni muy demee tricher moo fi jeex élection bi comme examen ñi liggéey doo ngay jariñ donc may wax ni ñooñu nekk majorité nan ko nan ko xalaate noonu ñi nekk tamit opposition ca Thiès nanu xalaat parce que gis naa kenn koo xam ni def na fi déclaration ni incha allah rabi kenn mënu koo tee mu nekk candidat maire mais kenn terewu ko mais manque d'élégance dafay am parfois ci nit parce que yàlla mënula àndaloo nit ngeen ne wutal nit ka ngeen wutal jël leen jox la mu jox la doole après nga wëlbati ko ki nga àndaloon doon ko wutali nga taxaw di ko tëkku et vraiment loolu njuumte la te erreur yooyu boo ko def ci politique da ngay créer sa bopp ay noon ñu lay préparer ay kii ak nangam ku nekk di la kii te loolu jaru ko te fekk nii wax dëgg yàlla méritoo ko sax def nga lu ëpp def nga lu bari loo xamante ni ku ko xool rek xam ni yow méritoo nga ko ñu bari méritoo nañu nekk maire ñu bari méritoo nañu nekk dara mais quand daam loo xam ne boo ko defee dangay ngay da bàyyi situation teew waxtaan am ngin waxtaane ko waaye ku jóg fëgg dënn non loolu baaxul loolu tax na man may sàkku ci ci goney Cees ñi nga xam ñoo nekk ci masorité bi euh, ñu xoolaat seen taxawaay euh, xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax seen rapport ak euh, njiit yi nga xam ñoom la fa yàlla def muy kilifa que muy doon président Idriss Seck que mu doon Talla Sylla que mu doon keneen ak keneen ñu seetaat parce que politique da nga koy tarbiyu et da ngay nekk ndaw euh, di ko def da ngay jàpp ni ndaw loolu day toll foo xam ni yaa nekk ci terrain bi day toll foo xam ne mag ñi dañuy jeexal yaa fi sës boo yoree yenn jikko yi wala nga yor yenn melokaan yi nga yor yenn yenn comportement yi yooyu baaxul ndax bu ëllëgee boo fi nekkee loolu rek la fi cees di te cees méritowul loolu cees yàgg naa am ay politiciens yu am valeur cees yàgg naa am ay politiciens yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla danoo compétent ci côté bu ne kon nag ku nekk na ci bàyyi xel ci loolu ba tax na nag fi ñu toll nii euh, ku nekk su coup ci politique cees day ay parcours lay ñëwee. ndax ñi ngi fàttaliku socialiste yi bi ñu fi ñëwee am seen coup mu am benn génération bu mu yëkkati ba Thiès toll fi mu fi toll président Ablaye Wade ñëw fi euh, Thiès amat coup euh, ci la président Idriss Seck ak groupe bam boobu ñuy àndee daal ci bénéficié wu et tey président Macky Sall moo fi indi moo fi am coup ñi ciy groupe di dund après ñeneen dañuy dem beneen groupe ñëw waaw kon nag euh, kenn ku ci ne nag war ngaa sàmm sa bopp. Eh, sàmm sa sa sa sa sa comportement xaaw sàmm sa sa sa lu bari daal ba nga xam ne bu ëllëgee boo fi sësee Cees bañ a rus Cees baña a bañ a yaafus donc euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm eh, di leen wax wax dëgg yàlla xëy na gudd na lool waaye du woon li ci dëng rek ngeen baal ma eh, du woon pour vexer kenn du woon pour wax kenn loo xamante ni waruma koo wax waaye c'était juste pour euh, def benn waxtaan rek euh, gin ñu ko pour nit ñi xam ni wax dëgg yàlla cees ñoo ko bokk c'est l'intérêt de Thiès qui prime et ñun ñëpp bu nu boolee suñu doolee que muy côté ñi nga xam ñoo fa nekk opposition ak ñi fa nekk euh, au niveau local c'est normal loo gis rek euh, ndaje la waaw donc ñi ngi wax ay affaire majorité gouvernement élargi affaire yu demee noonu mais Thiès it war na mën a nekk exemple donc tey jii eh, ñu ñëwaat eh, président Talla Sylla eh, ñëw ànd ak président Idrissa Seck ak waa majorité présidentielle ñoo ñu gouverner waat Thiès donc mu doon alternance locale bu fu kenn musul musul def donc man loolu man sàkku naa ko su ma sañoon si la nekkaat candidat ànd defar Thiès et que majorité présidentielle bi tamit jël taale si la dooleel ko mu nekkaat maire ville et ñu jël euh, keneen ak keneen dooleel ko mu nekk euh, président conseil départemental wala leneen ak leneen loo gis waxtaan la rek waaw kon nag euh, waa Thiès lu nuy def na ci intérêt nekk bu ci intérêt Thiès nekkul yaakaar naa ni jarul kenn du ci dugg jërë ngeen jëf wasalaam.